bismillah khairul asma bismillah rabbil ardi wasma bismillah barakatan wa shifa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. seen émission waxtaan Bismillahirrahmanirrahim. ba tay ak Sirif Bismillahirrahmanirrahim. ci Fatiha jall nañ première partie bi phase bi ñu ñëw ci deuxième partie bi inshallah rabbi ba tay and ak Fatiha ay njëriñam ak secret yi nga xani mom la bi. barakallah bismillah xam nga bo ni nga waxna la tomb yi. Mhm. واخنا لا عرفي تيمير لا نياف كو نين 124 ما لي واخ ديكو كوماسي تي ليفو الحمد لله با تي نون راك ولا دالين موي 124 واو waye bo ci mhm. tege amin mhm. di juromi lettre mhm. mu japp latif latif 129 ñew taxaw kon waxtu woo jàngee faatee ba ci wala daaliin mm-hmm. amin mm-hmm. sikkar nga latiif mm-hmm. cent vingt quatre mille wala loolu te waxtu woo jàngee latiif cent vingt neuf jàng nga faatee kon yooyu sikkar yéeme na loolu hmm? Hmm? Hmm. dégg nga ko 124 lettres boo ci tegee 5 lettres muy amin muy mu sayyidina Muhammad rasulullah alayhi salaatu ak ñeenti saaba yi mom lañu al amin moy rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu ak wasallam ak mooy cent moy 129 gis nga Seexul khadim sar bi fi ne bo demon ci ko xamni dafa am jafe-jafe aduna rab da ko jàpp wala liggéey da ko jàpp wala umu ba mënta am dara mënta am liggéey léppam taxaw mm-hmm. nga bind faatee aaya bu ne nga def ca wa in yàkkaatu mm-hmm. la si kafaroo mm-hmm. ba aaya ba jeex wa in yakaadu allazina kafaru la yazliquunaka bi absaarihim lamma samicu dikra wa yaquluuna innahu la majnuun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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ngook gis nga noonu ba faatee bi jeex nga di ci dugal wa in yakaatu waxtu woo gisee koo xam ne yii ma wax ci jafe-jafe cat rab liggéey seytaane nangam da koo jàpp su ko ko liggéeyalee nii def ko saafara bu ko sangoo juróom-ñaari fan mu mu mu wér mas na ko jàng af ko ci ndax waaw waaw mhm. yow même ku la ko bindal mhm. jàngi ko ni ma la wax ni aaya fatiha boo def jàng aaya wa indi akaadu boo def jàng aaya wa mhm. su boobaa nag ki koy jàng ci ndox ak kii bind leen di wutale masalan boo waxoon alhamdulillahi rabbil alamin wa indi akaadu ba mu jeex booy defaat aaya bi ci da ngay wax alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim wa indi akaadu ngay commencé waat waaw ñetteelu aaya alhamdulillahi alamin arrahmaani rahim way neekaatu mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din way mm-hmm. neekaatu kon da ngay saa yoo kii da ngay arrêté déedéet faj bépp jàngoro bu nekk ci nit mm-hmm. ci kàttanu yàlla bu ko jëfandikoo juróom-ñaari fan sangu ak naan noonu lay def bu dee koo xam ni nag day wut wërsëg dafa amul waajaa ngi sëñ xarim tàgguloo di tukki waajaa ngi tàgguloo di wuti waajaa ngi tàggu di wuti loo xam ne ab jongante la. Mm-hmm. te nga bëgg mu am mm-hmm. su boobaa da bind faatiya bi. Mm-hmm. boole ko inna haasa la risquna ma la min nafad. arrahmani rahim. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد noonu ngay def ci diggante aaya bu ne ak moroom waaye boo noppee dafa am tur yàlla bu rëy bu ci ne boo xam ne secret ismulaay axsam bi mu ngi ci biir Faatiha xayul xëyoo ah waaw mooy motoor bi baatu laa ilaaha illallaah rasulullah mooy motoor bi xam nga boo jëloon tey cent vingt neuf wax naa la ne mooy latif Latif. Mm-hmm. moo jàpp arafi Fatiha. Mm-hmm. seetal gaaw yow miy bind. Mm-hmm. tomb yi ñaata laa la kon. 45. nga jël 45 mi teg ko ca. lu lay jox. yaa <laughs> xay tomb bi Fatiha ak arafi Fatiha soo ko dajalee ayul xëyum la lay jox. Mm. tey xëyum xam nga damay suñu ak as. kii man la كون ساي بيندي آية فاتحة بيندي آية إن عسى لرزقنا ما له من نفر داغي داغي داغي داغي داغي داغي روف تا ساسي يا حيو يا حيوم ولا نغي بيندكو 174 اوكي تخم 174 موي مكه مدينه مكه مدينه خم 174 موي اموال الدنيا اموال الدنيا تا 174 موي حيو حيوم moom ngay def diggante aay bu ne ak morom ma ni nga koy toppee. moom it bëri dugg dugg nag eh, kii kéemaan la. xëyul xëyoo. mooy alxuraan képp foo leen fekk ko fa. foo leen fekk ko fa daal moom. fekk ko fa barke dem ba ci kuddi dama wér dama toog ci kaw. Mm-hmm. di jàng lixlaas. Mm-hmm. ba ak sama dem ci moom. Mm-hmm. fekk fa ñaari baat. ñaari baat. xam ni daal bi. ci laa xam ne ayul xëyul morom. boo jëlee lam yalit. waaw. ak walam yuula. allahu hayyul képp la ñaari baat hmm? <laughs> hmm? mhm. mhm. boo ko jëlee. Mhm. xam nga ayul xëy da lay jox. 156.

moom tur bu yàlla la woo xam ni. waaw néewaana fooy dugg ci biir alxuraan te fekkoo ko. Mm-hmm. loolu mooy nekk ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. kon. ñu ngoon ci Fatiha. Fatiha dañoo joxoon fële. ci diggante Fatiha. waaw boo def def inna haza rizqunaa maa lahu min nafaadin. waaw boo noppee tekki yaa xayu yaa xayu. indi beneen aaya. waaw ko. boo defee Fatiha benn yoon. def inaha sa des xu naa maa doxo bi nafadi mhm. fop 174 roof ko fa mhm. ba faatixe bi jeex mhm. nga loolu boo ko boole woon ak curayu libaan suñ xaatim ak xaalis yu bokkut ñett baax na CFA dollar ak euro nga jëfandikoo ko fukki cangat ak benn nga koy def dem jàpp soo yoon tukki di nga ni sëri te fa nga jëm kenn du la fa. kéemaan la. te gis nga fi mu génne. daal dafa tomb yi ngay jël boole ko araf araf yi mu jox la ko. Mhm. kii moo rëy. parce mhm. que moom fàtteetu kitaab. Mhm. jërul génn jëm fenn. fii bu fekkoon da ngay wut kaaraange. nga xam daa ngaa bëgg ku la tooñ loru. lu waaye def mu ko pot ci kawam. jël ko moom képp. jël ko moom kese. gis nga aay boo bind. mu jeex delul ca diggante aay ba ak morom ma. bind ca waradallahu lasina boobu nga doon waxoon keroog. lasina kafaroo. alhamdulillahi rabbil alamin. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال <laughs> وكان الله قويا عزيزا ñi boko ni jëfëndiko ay bu nek boko jéxalé fofu wara daal lu ci ko def ko ci biir cheikhul mhm. khadim jëfëndiko ko mom guddik altiné mhm. guddik alxames mhm. guddi altiné encore demal sa yoon bul takati len bul lepp lu ay giim ci sa kaw soti ko ci ci barke alquran karim su borom delloo ko ci kaw guddig altine guddi alxames guddi alxames ya ñaari guddi altine ak benn alxames benn alxames mi fatte tout temps hmm jani yi dari hmm gis nga mom kesse hmm man liy wax fat ubbe ko waaw sa mhm. diggante ak sa borom hmm ngay def commerce te bëggo mu daal mhm. jërul bari ay tour saxalal lim 124 bi rek par bis mu fatiha sa bo xëyee saa boo xëyee jàng ko bu dee kuy wut wàllu àdduna bu guddee jàng ko bu dee dangay wut wilaay si diggante sa borom ginnaaw timis 124 nga saxal ko fu mag ñi ne ci baax da nga leen fa fekk da nga am kas fu bu wér bu mu réeku ci yow da nga am wilayatul muhammadiyya salaahu salaam te da nga am wërsëg bu dee da koy jàng par guddi 124 su dee da ko saxal par par bëccëg nag par suba maanaam lépp looy liggéey yàlla da ci def kon kii Bayra Ndiaye yëpp. jàpp ko jàpp moo moo ci Hmm? loolu la yàlla dogal ci moom. Hmm. te Fatiha ngi noonu de. waaw ah, hmm. gis nga Faatihatu kitaab. bañ nañ ko ba nit bu ganee àdduna li ñuy tuddee toqantal. moom du nga koy bindal benn yoon boole ko suukar mbaale. gis nga soo ko wesaroon. mooy bind ko par araf. par araf alif laam. xaalonk xaalonk. miim daal mhm. liif laam laam ba araf yi jeex nga def ko mhm. benn yoon bind ko beneen boo xam ne da koy taxale tomb ko maas ko bind ko beneen boo xam ne doo ko tomb doo ko maas bind ko beneen boo xam ne da nga koy tomb rek doo ko maas kon ñeent laa la wax de mhm. maanaam bu góor bu jigéen bu ngunu gana ak bu nu weesat lay nekk gis nga sëñ Xaadim kooku bu dee aw xos maanaam dangaa bëgg jur gu barkeel dangay def transport bëgg say oto bari dangay ngay def commerce bëgg say bitik dox. Mhm. sëñ bi foofa fexeel ba jëfandikoo loolu ci barab bi nga ne. Mhm. def ko fa wala nga def ko ci seeram yow di dem di ñëw wala nga wëggee ko sa jur doxoon. aka moo bari njëriñ fàttatu bi tam mhm. as. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin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 dafa ànd ak Seydina Aboubacar Siddiq mm-hmm. ànd ak Seydina Omar mm-hmm. ànd ak Seydina Ousmane Seydina Ousmane yonent bi yónni nañu doxee mission bay ñëw mm-hmm. romb borom bopp bi métti boo xam ni jaaxal na ko lu ne def nañ ko ca lu ne def nañ ko ci mënuñu ca dara beneen ñooñu traversé ñu xool seen jëmb yi jëmb yi màndarga woo yu baax ñu ayu ñu taxaw Ina ne dañu am ci yéen yaakaar dañu am malade boo xam ne jaaxal na nu mm-hmm. bëgg ngeen dimbali nu defal lu ci ñaan nu mm-hmm. xoolante ñoom ñeent mm-hmm. abakar sadi nag yaakaar kenn du ko tas anaka tawat ñu ni mi ngi nii ñu foog waaji langaat la nga ne bëcc ci kanam mu mu seet la mu xam ci alxuraan jàng faju ñu jox seen omar mu ne ah, man de wax yàlla bopp mu ab docteur faf ba di jëm leen Hmm. ñoo Seydina Ousmane mu ne man nag ginnaaw Omar xamul lu muy ci faje bopp ma man jàngu ma woon loolu man hmm. commerce laa xam hmm. Seydina li loo ci xam mu ni cëpp dem tiim wàcc jàng fàttee juróomi yoon def benn ci jëba teg baaraam def benn ca ndong teg baaraam def benn ci wetu ndijoor ba teg baaraam def benn ci côté nopp càmmoñ teg baaraam foofu loxo ba tëral ko ci digg bopp ba jàng fàttee ëf ci bopp ba seet waaye nag sirran la ko def ci yaru jëmut kaw waa ji yëngal gauche yëngal droite yëngal lépp doxut mulaa mu poos ba ñeent génne ñeent dinaar aku bay jox leen ali fas ak xaalisam booba bu doon léegi dinaar da ngay wax ni ñeent fukki junni deux cent mille la ak yi ci war ànd mook ci dan di cëpp rek salaaw salaaw di ko xool ba yàgg ne ko jox ma saawale ci waaw ku laa xamal ni Faatiha mën naa mocc sallallahu alayhi wa sallam ana Ali ibn Abi Talib mu ne ko waaw mu ne ko ku xamal ni Faatiha mën naa mocc mu dikk ci la mu waxoon ana hilm wa aliyu baabu wa aliyu baabu xaa kon faatihatul kitaab Seexul Xaadim moo nekk noonu lu ne mën na ko ci jaamam xanaa lu ci jàpp sabab lu waaye loo ci doo ko duggee mën na ko def boo koy seetlu daa ubbi ko ak ñaan ak cant. ak cant. tëjee ak ñaan. tëjee ak ñaan. nu mu ko ubbi ko. Mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. jaadu na. Mm-hmm. ab jaam defal ko yàlla. parce que li tax mu war koo defal. ki mu koy defal rabbil alamin moo ko moom moom. te ku la yilif ku ne. defal la teraanga yu teel ne li ma defal boo ko santee jaadu na. waaye boo dee ba ci mujj lu mu wax. bi ma la santee ba noppi yàlla ne ko loo bëgg. mu ne ko yàlla bu ma réer. wala daal waaw ku sant ba noppi sax ngaa ñu ah, comme la in sakartum la mm-hmm. yàlla suñu borom sant naa ndax jaami yaa leen moom te teraanga gën na leen mm-hmm. waaye lu mu mujj ci ñaan nga mooy mm-hmm. maa ngi lay ñaan nag ba ma sama cant gi. bu ma réer mukk ci ci kaw suuf. naa doon ku ñuy taral adduna naa doon na ca sart ya. noo bëgg mel. tëralal ma yoon wu jub ni ñoo bëgg a mel siraat la seen anamta alayhim gaa yu baax yi mu yonent yi waliyu yi nujabaaw yi saalihim ni ñu mel siraat la seen anamta alayhim noonu laa bëgg a mel xayril mahdubi alayhim waaye bu ma mel ni ñi nga xam ne dañoo sànk topp seen bakken wala daal yi yàlla bu ma réer fati ay waxee noonu moo tax daana wax ne il faatihi lima uxliqa faatatul kitaab a koy firi waaw xam nga booy fa booy booy teg tegtale baat boobu. Hmm. waxoon naa la ni boo ko limee juróomi téeméer la lay jox. il hmm. ci dindee adatub huwa. onze waaw. Hmm. cinq cent. boo ci moyen onze suñu xarit. dafa lay jox quatre cent quatre vingt neuf. quatre moyen onze. waaw moom la. gis nga ni saa yoo toogee benn place jublu penku toog sëkkar ko fàtte ba mu jeex. nga ñaan yàlla sa aajo faj soo toogee benn place julli penku jàng ko salaatu fatiha ba mu jeex aajo boo ci diis yàlla faj ko. 489 89 bii ma la wax. Fatiha mooy Fatahu boo xoolee boo ko kii. Fatiha mm. Fatahu. Mm. il Fatihi. Mm. Fataha. lam yura. Mm-hmm. la Sëñ Tuubaa wax. Mm-hmm. Mm-hmm. xat waa awdu lan yura. kay. li man xayaati sa yara ridan mu diima bu sari. mu koy wax ni Fatahu. fataxta lii kulla baabin kunta faatihahu leew li yahika yaa fataax yàlla mhm. yow aji ubbi ji mhm. ubbil nga mu bunt boo xam ne mos nga ko ubbil wàllu ci kaw suuf ci mhm. barke fatax bii fatax bii nag mooy faatatu kitaab noonu la mel ci jàmm na sëkk dëgg yàlla kawe ni njort mboolem secret yi ngi ci joxe daa matale sëkk te benn bu nekk doomu aadama daf koy soxla bu dee wàllu kaaraange ci cat ci pexe ku ñuy xeex dégg nga sëriñ bi andil la faatiha diggante aaya bu ne aaya bi ma jàng li waradallahu lazina kafaru bi xaysihim lam yanaalu xayran wa kafallahu lmuminina alxitaala wa kaana allahu xawiyan aziza bu dee ci wàllu wërsëg ubbeeku bayre sëriñ bi jox na la ci faatiha diggante aaya bu ne aaya boobu di inna haza la risquna maa lahu min nafaadin nee na boo noppee toftal ci yaa xayu yaa xayum 174 wala bu la neex nga def ko ci diggante aaya yi nga xam ni boo boolee tomb faati yi ak araf yi da jox turu yàlla woowu di yaa xayu yaa xayum hmm. ba tey ci wàllu caq ku ci bëgg a mucc ak wàllu pexe yépp faatiha ñëw indil la ba tey diggante aaya bu ne ak aaya bu tedd boobu di wa in yakaadul kafaru la yaslixuunaka bi absaarihim lamma samiu zikra wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa illa zikrun lil alamina nga xam ni ni ko sëriñ bi leerale boo tàmbalee ci liifu alhamdu ba ca xayril maxdubi alayhim wala daalin nuunu wala daalin dafa lay jox 124 124 boo ci tegee ñetti sero mu jox la 124000. nga xam ni mboolem yonent yi suñ borom mës a yónni ñëpp. seen mbóota ngi ci diggante boobu. nga teg ci amin nag muy rësi ba di latif. di 129. nga xam ni ñoom ñëpp buñ dajee latif moo leen ëmb. dégg nga ci nga xam ni mooy dox ci diggante jaam bi ak yonent yooyu. maanaam da nga ciy yëg tawféex gi suñ borom defal. ummatu sayyidina muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam li tax yalla nan ko kuntum khayra ummatin lin nas manam Ya gën ñep sa xet wee gën manam sa bo to gi nitu yalla ku am deg deg bu la leralé ci sirul yek da ngay xam li tax suñu borom di wax nga xam ni fatiha boko ko mbolem yonentiyek aw xetam seeni secret suñ borom dëxal ñu ko ci biir fatiha mm-hmm. yow aji jang ji sa boko ko yalla defal lepp mm-hmm. nga xamni moy mooy secret yi suñ borom ëmb ci aduna yalla nga ko dàq ci biir fatiha mm-hmm. bo nopi nak ubbe ko ak cant dañi beret ni alhamdu sant suñ borom kon lu mat la ba nopi nga xamni ci ak cant nga tàmbalee dem ba ci biir bak yalla suñ borom ci ar rahim ci maliki yawmiddin diin ci iyaaka na wa iyyaka nasta'in sering bi andi ci ñaar ñaaral yooyu nga xamni yalla yàlla nako ci bir ci nyar ay bi mhm. ba baat yi nga xamni da ñaar-ñaar mhm. mu kan moko def mu ni minal masani mhm. ki nga xamni lo gis muy pat ak père rek moko def goor ak jigen mag ak ndaw ku ñak ak ku am aljana sawara texe ak texe di nawet ak nor tang ak sedd ñaar-ñaaral yooyu minal masani lu mu la bëgg jox présenter ngir nga def ko ci biiram mu ni wal quraan al nga xam ni moom faatiha mooy néeg bi nga xam ni wala kër gi nga xam ne mu ëmb mboolem al quraan yépp mm-hmm. sëriñ bi indi na ko ci ay leeral kon faatiha daal sëriñ bi mm-hmm. ci gàttal yéeme na lool li nga ci indi it mat na sëkk yàlla sañ moom defal na ci ak dégg mm-hmm. ak ak topp yàlla xam na ko waaw waaye daal yéeme na daal tubarkàlla waaw tubarkàlla waaw sëriñ bu ok ngir tëj ko moom dafa am ñaari tur yàlla mooy wax ci alxuraan nii war a fax naa lakka zikraka yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam may naa la ci sama bopp fu ñu ma tuddee bu noppee nañ la ci tekk war fax naa yëkkati nanu mm-hmm. lakk yow Muhammad yow lakk yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. sikkar ak sa tur mm-hmm. moo tax boo waxee ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu an muhammadu rasulullah ngay wax moo xam ca noddu moo xam ci waa jii di tuub léegi dugg ci lislaam même bu doon ci julli ji imaam jàng faatiha dal ay bo xam tour mohammed dañ ci biir xam nga ñent yoon le turam feñ ci biir kamil bi ñent yoon lañ ko ci yàlla tudd direct directement wama Mouhamed la rasul la raf waaw ma Mouhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar rusul ak Mouhammadu rasulullah ولا شيء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وقاتم النبيين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بكامل القرآن جاء تيمير الساعة fukki saar ak ñeent ñeent yoon la ko ci yàlla tudd moom rasul te moom ab téeréem mhm. yonent yàlla Muusaa mi nga xam ne ko cay fersuwaale mhm. lopp ñeent téeméer yoon tudd nañ ko ko ci mu doon kaamil <laughs> moom moom téeréem moom nga xam ne yoonu nekku ci bari man mën a tax mhm. yàlla da koy tudd ay téeméeri téeméer ki moom yëfam ñeent yoon lañ ko ci tudd Eesa kenn xamul nu mu toll Ibrahima kenn xamul nu mu toll waaye ñeent yoon lañ tudd seen alayhi salaatu ci biir téere bi directement بكت نك يمكن فرسو لا خد كان لكم فرسو لا يسوت راسا خير يملون بحبته وكي يملون واي تروم دركت ما نينت يولي في كيري فرسالة دال وكي مي ورا فحنا لك شكرك بسنغا باتو الله اك باتو محمد سولن بولي دفنا كي سين سيفر 158 لا واو 158 158 موم لا سكر كدي دي واخ امول lama xudda lama xudda mm-hmm. boo leen boolee ràbbale leen noonu noonu lañ koy firee mm-hmm. boo ci boolee jibril nag mm-hmm. ngay wax amul lay xuturi am jël xab amu jal amu jal xab ma lay xuturi daal moo fi amul jal xab la ma lay xuturi <laughs> yooyu moom yeneen bir la yéen sëriñ si yéen a ko xam moo tax yooyu yooyu da nga koy codé bàyyi ko yéen ñoom ñoom aas ñu gis nga baatu sëñ xaadim iyaaka naxabudu rikk seet ko allahu muhammad la 158 waaw waaw. iyaaka naabudu kese iyaaka yow yàlla képp naxawut la ñuy jaamu ndekete kon iyaaka yow yàlla képp lañuy ñuy jaamu. Mm-hmm. waaye nax bu du ci rasulaay lañ lañ koy roye. iyaaka mooy ki ñuy jaamu. nax bu du mooy rasulaay bi koy jaamu. mu nekk cent cinquante huit. waaw iyaaka ma iyaaka nax bu mm-hmm. xoolal lim denc téeméer ak juróom fukk ak ñett. Mm-hmm. yéen borom xam-xam yi ngeen seet ko. Mm-hmm. noonu la saar mm-hmm. hmm? moom mi dañuy wax ni. moo ndar képp àdduna su fekkonte ni àdduna day bâtiment fondation bi nekk ci suuf ba tey àdduna ba ba daanu moom mi la moom lañ def penku càmmoñ ndeyjoor saw kaw ak suuf fatiha ko wax ak rëy moom mi moo tax mboolem nitu yàlla yi boo demee li sëñ tuwaar yi nga suñu taalif na ci ay téere yu dul jeex basmala bi def na ko alifu alhamd lu ci nekk barakatil fatiha wajal xilaami xayra baabin fatiha gis nga ngëneelu yi nga xam ni Faatiha moo koy ubbi moom laa lay ñaan yàlla nga jox ma ko lépp looy ñaan ci kaw suuf xëy xëy xëy rek jàngal Ali Imran jàngal Baqara jàngal ubbi woo ko Faatiha suñu borom tëj bunt yi boo ko jàng Faatiha ubbi nañ ko boo gisee ñiy taxaw di julli penku di julli warante yu bari na mm-hmm. borom téye sonn nañu ba sonn mm-hmm. mënee su ubbi ko ci julli farata mm-hmm. leneen lu dul alhamdulilah bi daal fatiha hmm. ndax bismillah hmm. lu ñuy tàmbulee la. waaw te soo xasee wax allahu akbar hmm. dugg nga ba noppi. waaw mënoo dugg ci biir ne ba noppi bi ci ginnaaw. ab néeg kay boo ci ginnaaw néeg. ko nga dugg ci biir waaye dugg ci biir néeg ba noppi bëgg a ubbi bunt bi ci ginnaaw mënta ne. te boo xasee wax allahu akbar dugg nga ci biir néeg bi lu fi sës. alhamdulilah. continuer fi ma ne waaye mënatoo wax. dugg ci biir moo tax Malick di defe na moo tax Malick ko foofu. Mhm. moo tax ku koy jëfandikoo ci neneen. Mhm. sa tariixa tax mhm. wala yeneen yoo laa yàlla jagleel. waaye julli mi nga tàmbale ci alhamdulilah. moo tax ñu wax ni. yi ñu ko màndargaale ñu xam ko. yëpp ay alif la. bi koy ubbi moom julli. bi ngay jëkk wax moom julli. ak ba koy tëj. ba koy tëj. Ah. allahu muy alif la. alhamdu muy hmm. alif gi allahu akbar mooy yi ngay wax hmm. Hmm. asalaamaaleykum ñeenti alif la seetloo ko <laughs> day la <laughs> da ci gis nga ko uh-huh. wax la yi nga composé mm-hmm. alif gi mm-hmm. suñu ne xaamee ba noppi rek la ngay jëre mooy alif ngay tudd allahu akbar alif gi taxaw julli gi doo ko taxaw ilimaan ngay tàmbali alhamdulillahi rabbil alamin alif gi taxawaat alif ga taxaw soo waree sëgg mbaa nga siggi allahu akbar ngay wax alif ga taxawaat soo waree sëlman ah salaamaaleykum ngay wax alif ga dellusiwaat muy ñeenti alif yi ñeenti liif yii bu dajee ci if yi daal du tubaax doo wax kubar de doo alhamdulilah de doo wax salaamaaleykum mhm. ah ngay wax muy alif googu noonu alif googu nag mhm. mooy doomu aadama ci la ko yàlla bind mhm. gis nga sëñ xaadim dafa yàlla dafa boole bi muy bind nit ngir mu war a nekk li ñu tuddee al insaan mu jarat nit ku mat gis nga tomb basmala tomb bi waaw moo doon bind tey jëlal si big defal ba mu rëy defal ba tere bi mën koo génne waaw kay gis nga tomb bi aas addunaa ngi comme ab nen feeñ na am mënta leer mooy adduna mooy nen bi jëru adduna tomb bii mooy baawu basmala gis nga ko waaw li nga tomb bii bi suñ borom waree def doomu aadama mhm. dafa sa jël tomb bi jox ko jigéen mooy appareil bi mu yor mhm. teg ci liif gi mhm. nga def nii jeet suuf la koy féete ci tomb bi walla soo sol ci suuf fii liif gi waaw waaw danga koy réel nga boo defee ni tomb sa digg bi de moom ak aseen <laughs> soko ni gor taxaw gis nga jigen jigéen jaa ne si kaw gor gaa ngi suuf tam aadama la ñew taxaw gis nga lo ci tek na tek ko ci tek ko ci bude bismillah nga doog ne ba andi nangam bu allah nga andi nga bude dee nga nangam waaye mhm. tom bi kep la defoon mi aduna mhm. mu bëgg ci leen mo ñu tareet aw jëm adama yi ñoo ñoo pura moo pour ëll nga fexé ba produire dara ci kaw suufu and mhm. fokk nga boole góor ak jigéen lu mëna doon lu ko alxuraan waxee kulu sayin mhm. xalax na min tin kulu sayin hayin mhm. xalax min al ma min al ma wa jaalna min al ma shay'in afala yu'minun borom bi neena lu ngeen ci kaw suuf muy dox ma composé ko bind ko ci ndox la ko bind lu ci kaw suuf تواخذنا في من يكون مهني خلاها أسواجها كلها لما نقول تكو سوهم جين كسم أميت كوبل بين ناس يقول جين بدي أقرب إلى أم قول جين خاري أم قول جين بي أم قول جين نيم قول جين دارا دوك دوك تاسوسو سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون كي كن نون تدي أس بسم الله